يدي في الأداء البيع والمداد هلا وسهلا وترحبا auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa kon mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu fas yéene ànd ak yéen ci seen naafila guddik tey muy dëppoog jeudi 7 mai 2020 muy doon fukkeeli fan ak ñett ci koor bi guddik tey mooy doon guddik fukkeel ga ak ñeent incha allah sëriñ bi dafa wax ni guddi fukkeel ga ak ñeent ku ca julli juróom ñetti rakka rakka bu ci ne nga jàng ca fatiha ak izaa jaa nasrullah ba saar wa jeex juróom ñaari yoon ne loolu ku ko def mel na ni ku saraxe junniy diinaar goreel junniy jaam leele junni ñu xiif te nanggo na nangu ak julleem ak kooram te dees na ko musal ci ayu aduna ak laaxira wep te bu bés penc dana bok ci ñi nga xam ni duñu jàq duñu tiit te dees na ko ràmmuloo ci ñi waroon dem sawara lu ko soob mu yóbbu leen àjjana te deesu leen xisaab kon julli gaa ngoog yàlla nañ ko suñu borom man def ko te def ko ni mu ko bëggee mu nangul ñu ko fulal ñu ko làq ko fa yàq eggul bi barkat Cheikh Khadim Yeah. चङा महाराज